actualité la ñu bëri di waxtaanee tey journaux yi aussi xëy ci mooy euh, li xew fële ca euh, Sénat à la surprise générale le président Sall jël décision remplacer toute l'équipe mu doon loo xam ne euh, ñu bëri il se pose des questions Euh, avant ñu dugg ci légalité euh, décret boobu ak yi ñu ci mën a wax yëpp yëpp yëpp le timing euh, parce que dafa tombé ak juste la Sénat jël une décision wala am nu mu taxawee noo xam ne ñu bëri jàpp nañ ne dafa arrangé wul njiitu réew mi wala dafa rek waroo xëy na peut-être ak gis-gisam ci doxalin moo tax mu doxalee noonu cette décision du président de remplacer toute l'équipe de la Sénat moment bi ñu ko defee nii. waaw dama jàpp ni xam nga réew Sénégal la ñu nekk. Euh, te dafa nekk réew moo xam ne nii euh, nga baal ma dañu bëgg souvent di discuter de l'accessoire au détriment du principal loolu mooy suñu difficulté réew mm-hmm. euh, dama jàpp ni contexte ban contexte lañ nekk ñu ngi nekk ci contexte boo xam ne ñu ngi jëm ci élection présidentielle vingt cinq février raison de plus deux mille vingt quatre nekk élection bi des daanaka ñetti weer mm-hmm. bu ñu jëmee ci élection bu wax bu mel noonu ci histoire réew mi ak tolluwaayu réew mi jàpp naa ni am na sujet yu gën a essentiel am na problème yu gën a essentiel yu ñu war a waxtaanee lu dul question yooyu parce que l'opportunité de la décision euh, président de la république moo koy jël euh, organisation Sénat nu muy taxawee composition bi loolu yoon moo jox président de la république moo leen di nommé par décret mm-hmm. te ñëpp xam nañ ni d'ailleurs je pense que l'opposition si elle et conséquente euh, war na am difficulté sax pour contester la décision là parce que élection yu fi jaar yëpp dañ doon wax bu ñu fàtte ni 2022 législative locale dañ doon wax euh, ñi seen mandat expiré na dañ leen war a changer mhm. dañ leen fi bàyyi parce que dañ arrangé nguur gi bu ñu fàtte xam nga nit ñi aussi bu ñuy wax c'est-à-dire que vous aussi yéen débat yi da koy jël. di fàtte sauf que à a defee. non bi ñu ne jeex na juste. société civile lu mu yéex yéex. loo xam ne ni ñoom ñëpp ñëpp d'accord nañ ni dañ ko war def seen mandat jeex na. Mhm. président mooy apprécier bi mu koy def. waaw mu def ko. ñu ne leen non bu jeex da ngay remplacer. non non. l'opportunité de la décision le remplacement xam nga ñëpp d'accord nañu seen mandat jeex na est-ce que d'accord nañu seen mandat jeex na wala d'accord pas ñoom ñëpp ñenn ci ñoom parce que mhm. yaa ngi dégg ñu ñu remplacer seen mandat jeex na dañ leen war a remplacer nañ leen waa léegi où est le débat la Sénat dafa am lu taxawee dernièrement non du loolu non cest à xam nga tomb li ñuy wax ci wolof tombay indil wax donc même sans ça li da am loolu nga gis da doon am tombe moo waral ay gaaf euh, li am mooy pour ñu leeral sénégalais yi. Mhm. waxu Sénat beeg débat boobu yëpp dañ koy yëkkati rek simplement parce que am na ñoo xam ne ci réew mi d'abord un dañ doon wax élection du am ñu ne leen élection day am ñoom wax nañ ñu fi président Macky Sall day def troisième mandat président Macky Sall deful troisième mandat. Mhm. ut nañ ñu ngi organiser façon germe ak tappale ak taxawaal boo xam ne nii suba dañuy préparer contentieux post électoral dama bëgg ñu xam ni ñi wax lépp lu ñuy wax ci élection bi la même nga waxoo ko la Ousmane Sonko di def la ñu jéem a am Ziguinchor jaxase xam nañ ni lépp lépp xam nañ ñi dara tegu ci yoon mais li leen intéressé c'est un combat politique mm-hmm. boo xam ne ni dañu bëgg a créer échoué nañ dans les termes de la violence et de l'insurrection mais fi mu toll nii ñooñu seen pexe bàyyi wuñ ko pexe bi ñu lal mooy naka la ñuy def ba salfaañe réew mi jaxase réew. non dafa ndànk waaw non dama lay waaw nañ ci loolu. yàgg na ma ci li ñu nekkoon xam nga la dem ci yoon tribunal bi Ziguinchor am lu mu leen jox. dama ne yaa may dégg. ñu saisir Sénat Sénat wax ak DGE. pour mu jox leen seen ay fiches. non de parrainage. non DGE. non nanguwu ko. Sénat musul wax loolu à la surprise générale. wax loolu. lu Sénat wax na leen. jot nañu requête. Mhm. requête bi pour ñu jox leen fiche yi nan leen jox fiche suuf suuf tubaab la suuf bu fekkee ni am na ay dispositions légales wala réglementaires yuy tere ñu jox leen fiche xam nga xooku leer na naan yi mhm. waaw bu fekkee ni dafa ne sauf disposition légale ak réglementaire lan mooy disposition légale ñu ne ku nekkul ci fiche ak fichier électoral bi ñu la jox fiche mais looloo tax DG e jox leen fiche DG e day joxe fiche xam nga mooy li ma la wax ci jaxase bi xam kan mooy dugal ci fichier bi ak génnee ci fichier bi. daaf mooy daaf. wax mais ñoom lu tax defuñu daaf daaf moo leen génnee ci fichier bi mooy dugal ci fichier bi pourquoi ñu yóbbu seen requête rek naan DGE DGE DGE DGE. c'est que man li ma jaaxal mbir xam mooy lan waaw moo tax lecture bi. yéen man ma lay leeral rek yéen a ko am en fait. man ma lay leeral les juristes. non man euh, damay la société civile. man les lanceurs d'alerte. man damay ñu ci bëri. waaw mais fii société feneen la ñu waxee en fait fii réew mi société civile amu fi. fii réew mi daanaka société civile amatu fi. ndax fii par par société civile da ngay société civile xam nga mooy la yow yaa ngi au niveau de la citoyenneté neutralité def nii mais yow sa pendant dix ans sa kàddu yëpp ci benn boor la jëmee. est-ce seen bopp non bu fekkee ne da nga jéng sur dix ans douze ans et toutes les positions gis nañ seen position c'est des positions politiques. c'est des positions yu jëm man commentaire mu affaire société dama ne la dama ne la li ma lay wax dafa leer man dama lay leeralal ma leeral sénégalais yi ñuy déglu que nit ñi la ñuy wax yëpp boo ko jëlee benn par benn semaine prochaine di nga dégg ñu waxaat la beneen dans deux semaines di nga dégg ñu créé waat beneen sujet bu ñu paree ci sena bi lépp luñ ci jublu mooy fexe ba sénégalais yi ñu ne ah élection yi ñu jëm de jaarul yoon mais loolu la ñuy ngeen si def aussi. non defuñu ci dara parce que sànq j'ai reçu Ndiaga Sylla mais nee na ma ci point yu bëree bëri mën nañu attaquer euh, ce décret du président de la République. attaqué ko déjà déjà xam nga wax nañu ci euh, ni mu balayee équipe ba fa nekkoon. nga jox ma ay raisons. mais aussi nomination yi am na yoo xam ne ça pose problème. non voilà maintenant loolu c'est différent. voilà non defal naa bu ñu ñu identifier problème. benn par benn. voilà c'est-à-dire que l'opportunité de la décision la légalité de la décision kooku elle est incontestable. bu ñu ci d'accord ensuite maintenant dara gënul bon nga ne da ngay xalaat ki jël décision bi lii mooy mais Sénat lu si yoonam si élection lu dul contrôler organisation bi am regard objectif est-ce que affaire yi ñu ngi jaar yoon kooku organiser wul élection Sénat organiser wul élection mm-hmm. Sénat waxul voteloowul nit ñi Sénat superviseur la observateur pour régularité opération yi nga xam ne administration moo koy organisé de balayer toute l'équipe en même defal naa xam nga loolu dama lay wax xam nga lu mu wax waaw xam lu mu wax oui xam naa li taxi yi wax chaque trois ans dañoo war a remplacer le tiers le tiers d'accord d'accord mais dafa ñi fa nekk ñoo xam ne seen mandat jeex na yàgg na remplacé wuñu opposition bi dañu fi yàgg wax ne ay nitu Macky Sall ñoo fa nekk moo tax remplacé wu leen waa tey mu remplacé leen ñu bëgg a indi beneen wax ma loolu du mu li may commande mooy opportunité décision bi ak légalité décision bi kenn mënul ko wante léegi waaw mun nga ñëw nag léegi ca nit ña ñu tànn. Mhm. loolu c'est un débat subjectif. ah c'est pas un débat waaw mais parce que mun nga ne nii ah kii mës na far fii kii jaar na fële euh, kii fii la bokk. sa mais on a des preuves de ça. non mais seen parloo. non j'ai ñaar au moins. non j'ai pas dit oui mais ñaar ñaar ñoo xam ne nii mës nañ am engagement politique c'est une réalité. oui. en faveur de defal nank rek c'est une réalité mhm. dem nañ ba pare amaat statut fonctionnaire bu incompatible ak l'action politique ñu bàyyi politique képp ku waaw non defal nank rek ñu wax waaw non defal nank rek ma wax la non defal nank defal nank ñooñu dama ne la dem nañ ba nekk de hauts fonctionnaire nekk des inspecteurs généraux de da nga leen dégg ci politique li ñu nekk est-ce que est-ce que fukki at yi ñu nekk IGE euh, Cheikh Awa Balla Fall fukki at yi mu nekk directeur général ENAM da ko dégg ci ay affaire politique. wala nga dafa joxe délai buñ ci war a génnee waaw loolu lenn beneen. non joxewu ko en fait. maanaam boo xasee engagé wu politiquement. mooy li ma xam moo loolu mooy débat détail bi ci. non du détail c'est important en fait. xam nga nit gis nga ñooñu c'est des serviteurs de l'État. oui sauf qu'ils ont servi aussi Macky Sall. non non non des serviteurs Cheikh Awa Balla Fall ces douze dernières années à une position mhm. de serviteur de l'État. On ne l'a pas vu dans une position au service du régime ou au service de Macky Sall. booy def procès da ngay wax dëgg Cheikh Awa Balla Fall par exemple bi ñuy stigmatisé pendant les douze ans de 2012 à maintenant mhm. il a une position au service de l'État kenn la ci des na keneen yaa ngi dégg kenn mën na ma wax ni wëy mais mës na dem jéem a dem élection locale Guédiawaye gañewul mhm. loolu mooy dëgg man du la wax fii loo xam ne du dëgg. mais loolu moo koy disqualifié en fait mais defal naa loolu mënu ko disqualifié. parce que gis gisuloo ko ci parti new la am naa carte de membre parti bougéwul ci benn carte mais dama la ne loolu détail la du ma siy dugg parce que beaucoup <laughs> si détail yooyu. parce que dañuy divertir pour Serigne euh, Amadou Ndiaye. non du dugg ci détail yi. nit ñi moom it il était le candidat de l'APR. commune Mos ci élection locale. du dugg ci détail malheureux mais n'empêche yéen a. xam nga affaire légalité lañ la doon wax léegi affaire nit ñi lañ lay wax. du dugg ci dama la bëgg a wax moi je je veux. ñu jóg tuuti. Euh, non non non attends attendez Khafor. non dama bëgg ñu li ma bëgg mooy. li gars yi teg nga teg ko teg fële mais bu ne c'est pas important. parce que c'est important en fait. des Sénégalais se posent cette question. xam nga lu tax ma bëgg ñu jóg tuuti. Mm-hmm. nee naa la Sénat voté wul géré wul élection. du moom mooy organiser élection. mais administration mooy organiser élection. le responsable moral celui qui a la tutelle de l'organisation des élections c'est le ministre de l'Intérieur il n'est pas encarté dama xam nga boo demee France nga dem Allemagne nga dem Amérique nga dem ces débats là c'est des débats loolu affaire administration la il faut pas qu'on confonde un parti politique c'est pas un parti politique qui organise l'élection c'est un État qui organise l'élection État c'est une permanence c'est-à-dire qu'il faut que les hommes politiques ñu jàpp Séné citoyens sénégalais yi leen di déglu. non mais mënuñu ko dissocier aussi on sait tous que je suis désolé Mamadou Awa man su ma xëyee 9h su ma nekkee suma bureau ba 18h je gère pas la politique je sers l'état du Sénégal je gère l'ensemble des citoyens sénégalais bokkul ak bu ma nekkee ci politique je parle avec mes partisans damay gere ñi ma faral dañuy wax cest à que parti politique par parloo la affaire état c'est une affaire générale il faut que nit ñi ñu li ñuy wax amul si il faut qu'on qu'on confonde la même administration qui était là sous Diouf c'est la même administration qui est sous Abdoulaye moo nekk sous Macky Sall mooy nekk demain sous sous sous sous le nouveau président. oui sauf que à la tête. c'est le président qui l'a choisi. foofu la problème bi ci wax ji mooy benn li gars yi coow li yëpp li ko lal. Mhm. nee naa la il y a 15 jours ñu décision ba tribunal dem nañ fële ainsi de suite les gens veulent judiciariser. l'élection et créer ay germes de contestation électorale parewuñ pour dem élection bëgguñu dem élection lépp lu ñuy def dafay nekk loo xam ne nii addition un cocktail pour que contentieux électoral xuloo xeex xiiroo ŋaayoo et même un putsch électoral parce que c'est des gens qui n'ont pas travaillé politiquement pendant ñeenti at au lieu ñu liggéey politiquement nekk ñu fi Macky Sall troisième mandat bu fi defee troisième mandat ñu taal réew mi dañuy taal réew mi dañuy se sont pas présentés kan nga ci gis à partir du avant le mois de septembre mu taal otoom génn Ndakaaru mos naa toog